bay nelaw rekk daa tiit mu mel ne dama gis alxuraan man ñu fàtte ko ma laaj ko mu dal may wax ne man di ki laa deful ndeleeg-leeg ñu jox mas añ akas tip ma ko ne daa am ku daa ndékkee ci man alifun banaas balaa jant bi jum kaw te buur yàlla yóbbu ko sëriñ Mbàkke ma dinaa ko daa def ci bis bu set balaa njël bu jàngu kaamilam nag ba sëpp ko auzubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu di ak dinu seetaan noo ngi fii tey ci kër sëriñ Cheikh Mbacke Madina gi ci sowu jumaa ji ci 30 bi di amal bisu siyaare bu mag boo xamante ne bii dañ ko baaxoo ziyaare sëriñ bi buñ nee suba la màggalu sëriñ Mbacke Madina gi e ziyaare bi nag ñu ngi koy def ci ñaar fukki fan ak ñeent ci kori wi dëppoog la vingt-neuf septembre mois mbooloo mi nag fenn fu ci nekk mbooloo jóge na fa ñëw teewe ci ziyaare bi ci biir dëkk bi région yi itam région bu ci nekk délégation jóge na fa ba bitim réew muy ziyaare bu mag boo xamante ni bii tey jii ñu ngi ko amal ci kanamu Serigne Cheikh Mbacké Madina ngir seereel ko sunu liggéey bi nga xamante ne bii moom la nu Serigne Mbacké Madina batale woon ñuy mbooloo mi ànd nekk benn ren di dox boobu ak léegi juguñu ci. kon ñu ngi ci siyaare bi ci kanam tuuti rek da ngeen gis mbooloo mi ni ñuy dugg see ak bu mbooloo mi yembee Serigne bi ñëw fekk si leen eh, waxtaan ak ñoom dénk leen. ñi nga xamante sant leen dénk leen ñëw yiw leen ñëw fas yéene dem ci bisub màggal gi alxuraan lii tax ñi koy jàng topp ko sëriñ Mbàkke Madina daf daa riim di yëkkati wax ca kaw ci teewaayu baayam waa tinduudi de xam na ko xasaayit bu ànd ak alxuraan booba wàcc na nde doom ju ne sañ naa wu yaayam mu benk ko ma wax la digganteem ak sëriñ seex nga waaru yow dañoo mel ne lab ak lii fu nii jëm ñu ànd ko keroog ba nu jàngee nag ba ñëw sëñ bi woolu leen ne nañ dem ci sëñ ndaam abdourahman mu dénk ko sëriñ ndaama ngay wax seexunaa mbàkke madina lu dul jaamu rabbul ars yow rikk moytu ko te loo jëf ci duniyaa ji lu sew sew du sew ëllëg te kat baay bu baax ak maam du tee yàlla segg ko te am ci duniyaa lu dul jaamu lool du tus tubaaba nga fee buy mooy te am ko ba romb ko tëkkat ah, comme koo ñu ko léegi rek yéen a gis mbooloo mi ni ñuy dugg see eh, fenn fu ci nekk waaye jógee fa ci réew mi ak bitim réew ñëpp ngir bis bi ñor leen ñor goo xamante ne bii kenn ku ci nekk da nga bàyyi sa yitte yëpp ngir teew ci kanam sëriñ bi Eh, noonu ñu taalibe yi def itam ni la ko njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha gi defe eh, mboolem kër bunt kër Cheikh Moustapha yi kër gu ci nekk eh, kilifa gi mag ga dëgg na yitteem ñëw ngir teew ci siyaare bi wala mu yable wala mbooloom daayira bi yëpp am na ñëw ànd seeg moom ci ziare bi muy daayira bi nga xamante ne bii moo lëkkalee mbooleem bunti kër Cheikh Moustapha yi muy diwaanul Mouridina te sëriñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma jiite ko ànd na ñoom ñëpp ñëw teew si ànd ak noonu ziare bi muy loo xamante ne bii. bëgg-bëggub Cheikh Mahamadoul Moustapha ndax Cheikh Mahamadoul Moustapha moo waxoon mbooloo mi nañ am nekk benn ne leen li nga xamante ni bii mooy seen eh, seen li ngeen jëm ci yéen muy seen li ci yéen seen wàllu adduna mi ngi nii ci sama loxo li fi leen benn du leen ko jox kon mbooloo mi yaakaar naa ne li ñu Cheikh Moustapha digoon mooy boo ñu séentu ko xam ne danañ ci jot ndax mbooleem Daaru Xudoos mépp am nañ nekk benn ndax lii wane na ko ndax ko gis mi mbooloo tey ci kanamu Serigne Cheikh mi nga xamante ne bii moo mag ci sëti Cheikh Mamadou Moustapha yi mbooloo mépp àndandoo ñëw toog ci kanamam tey di ko ziare loolu wane na ne mbooloom Cheikh Moustapha mépp mépp ànd nekk benn fii nag la mbooloo mi di dugg see gis ngeen daayira yi ni ñëwee ak mbooloo mi ni ñuy ñëwee eh, li jamono ji di xat-xat ak li muy nawete nawete ñoom yëguñu ko faale li leen ñor mooy sëriñ bi ak yitte sëriñ kon ñu ngi ñaan daal ci kat nu yàlla yonent bi sëriñ Tuubaa sëriñ bi ñaanal na ba lii nga xamante ne bii na mbooloo mi mobilisé woo ànd nekk benn nii col gi niroo ñaan suñu borom mu ñaanal na xol yi ànd ni nekk benn ba kenn ku ci nekk loo yéene ci sa morom loo yéene sa bopp nga yéene ko ci sa morom lii rek moom mooy moom moom moo waral siyaar bi e ci kanam tuuti sax bu sëriñ bi ñëwee da ngeen gën a xam bu baax li ma leen wax da ngeen ci gën a mën a jàpp ay wax yu baax a baax ci li ma leen wax kon lii rek moo am njëriñ ñu leen di taxawlu foofu ba ci kanam tuuti ñu ñëwaat ak yéen ci ziyaare bi moom Mbàkke laay bëgg na tali li tax tey mu mën nii alxuraan nag ba bindu ko sëriñ Mbàkke Jóob moom Baay Moor Jóob mu daaru na immile ci ñetti atam daa wopp ba sangu ko ba ñëpp ne kii daal moom jëru yóbbu faatu na ba ñëpp ne kii daal moom jëru yóbbu faatu na mu am mag mu am xel dal di koy guuf ba indi ko mil maa ngi jóg ngir marsiyaal sëñ mbàkke moom ma diina sii niti rijaal bismilaahi maa ngi jóg ngir marsiyaal sëñ mbàkke moom ma diina sii niti rijaal dunyaay kërug na xarte dib waraa kon waraat na kuy jullit ci waaju baaxoon waat ci lolli laaj ko moo demoon moo àndoon ñoom mook sëriñ jóob lew na laajal sa gànnaar ja ndax neexoon na abdu jigal itam demoon na gànnaar cheikh moustapha mbakkay borom mi lasraar at ma itam sëñ galo lam ma jox misaal tëm sa lay doon di demuk si xibra faal mët jëng asan ni ëm war ngaa sant am nga sa bopp see xamoo di jant am nga sa baay it mooy borom madina moo bamba maam ja seeni mbir nuróo na waaw yéen a gis noonu soxna ma Ami Mbacke bintu Serigne Mbacke man mi nga xamante ne bii moo nekk ci bopp mbooloo mi ànd ko magam ju baax ji Serigne Cheikh Gaynde mi ngi noonu dugg si ànd ak mbooloo mu takk ko takk ko takk ànd ak soxna yu mu jeng ànd ak soxna yu bëree bëri yoo xamante ne bii daal ñu ngi ànd rek nekk ci ginnaaw soxna si guddeeg bëccëg lépp lu mu santaane ñaga ca kon gis ngeen soxna si ni dugg see noonu ànd ak mbooloo mu bëree bëri. Eh, ci naka noonu it ne la kilifa yi ci kanam tuuti ngeen gis yeneen kilifa yu bari yuy dugg si. bañ ba woo gànnaar ba del si lañ dem fu kër gu ma njëriñ seex mu dem seex mu sawaa ko mu ñëw mu wax mu leen di jàngale ca kër ga gëm ko sëñ galo may la am di delluwaalo mu ne faak ñoom galo jar na wóolu mu leen di toppatoo di aaya ñiy ñëw ngir rekk bañ seen njàng yàqu moo way ab néeg la wutal ca féete gànnaar mët dem di leen fekk si moo di jàmbaar waaw kay gis ngeen ko kon Serigne Cheikh Gaynde mi nga xamante ne bii moom laa doon tudd léegi nekk ci bokk mboolem fédération Serigne Mbacke man yi ci biir réew ak bitim réew Serigne jox ko ndigal mu jiitu mbooloo mépp topp ci moom et son maam yi topp ci moom Serigne Cheikh Gaynde mu ngi dugg si noonu moom it ànd ak mbooloo mu takkoo takko takku yooyu nga xam ne moom bu accès rek moom lañ doon négandiku bu accès rek sëriñ bi génn si ñu amal ziyaare bi kon sëriñ Cheikh ngi noonu di dugg si ci biir yaakaar naa ci kanam tuuti rek sëriñ bi dana génn si ñu daal di amal li nga xamante ne bii mooy ziyaare bi ci kanam mbooloo mépp ñuy sant rek mbooloo mi ci taxawaay yi nga xamante ne bii taxaw nañ ko rek ci daayira bi ak taxawaay yi nga xamante ne bii taxaw nañ ko ak suñu mag ñi nga xamante ne bii ñoo jiitu woon yoroon daayira bi lu mel nekk El Hadj Abdoulaye ak sëriñ Alla Diop Sanjiri sëriñ Cheikh Seck ak sëriñ Moustapha Niass ak mbooloo moom yëpp dañ dem ba jël liggéey bi jox ko gone yi gone yi yore liggéey bi ñu ànd ak ñoom liggéey bi tam taxawu leen waxtu wu nekk ñu suñ waxtu wu nekk ñii suñ kanam waxtu wu nekk ñii suñ ginnaaw nekk suñ digganteeg sëriñ bi lu luñ ci war a dox lu nekk ñu dox ko luñ ci war a wax ñu wax ko ñu ngi leen di ñaanal rek suñu borom yàggal leen fu te wéral leen ñu wéttali noo wéttali ba ca kanam ñun tam ñu yàgg a jaar seen ginnaaw yàgg seen ndigal ci ginnaaw sëriñ bi kon ci kanam tuuti rek ñu sëriñ bi génn ñu amal ziyaare bi aalay la tudd lantaraa naaka madu këleen dalal xam-xam itam madu ma taar moo diw turam jambe ne woon gu yaar kon wax woon léegi rek nañ mbooleem njabootu Daaru Xudoos gépp teew si nañ yéen gis soxna maam bu sa moom suñu Abdou Aziz guy mbind ànd ak mbooleem daayira yi nga xamante ne bi ay ay bàyyi Xadim nekk ci ginnaawam ñu àndandoo muy sëriñ daayira sëriñ Moustapha Mohamed ak góor ñi jigéen ñëpp mobilisé wu topp ci ginnaaw soxna Maam Bousso ñu teew si ci siyaare bi sëriñ Moustapha ci boppam it dagg yitteem yëpp jógee niveau ji ñëw teew si kanam waajuram wi ci siyaare bi kon Daaru Xudoos gépp mën naa ne li Cheikh Moustapha bëggoon ci ñoom am nañ ko kon nañ rafet njort bu baax te ñaan si suñu borom mosul ci seytaane mosul ci ndog ba lépp loo xamante ne bii taalibe yi war nañ koo liggéey ci kanam sëriñ si ñu koo liggéey na gën a rafete def ko tindoo di mbàkke am na jaajëf tuubaa ki njaareem jàll boori darma bay daa itam xam nañu gaynde mbër ma tuubaa ki njaareem jàll boori darma bay daa itam xam nañu gaynde mbër ma waaw yéen a gis noonu sëriñ bi jóge ci biir ñëw di dugg si ci ziar fi ñuy defee ziar bi ànd ak njabootu Cheikh Mahamadou Moustapha gépp sëriñ Cheikh Aliou sëriñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Mahmoudan Gaynde Fatma ak Serigne Amsatu moom soxna Daba moom Cheikh Mouhamadou Sa ak Serigne Khadim Sarr moom soxna maam Karim Baara ak Serigne Mbacke moom Serigne Dam Atta ak Serigne Mbacke Madina moom Serigne ak mbooleem Serigne si nga xamante ne bii ñoom la Serigne bi àndal di génn si muy Serigne si ak doo si ak doomi Cheikh si ñëpp Serigne baa ngi ànd ak ñoom ñëw dugg si nag ci bi nga xamante ne bii fi la mbooloo mi nekk ngir ñu amal ziare bi ñuy ziare boo xamante ne bii. wax dëgg yàlla lépp loo xamante ne bi ñu ngi ko ci doon séentu suñu borom defal na nu ko ci ba defal na ci lu kawe suñ jot ñu ngi ñaan kon yàgg koo teewe ay déwéni déwén at mu jot mu nekk yàlla na sa boroom def mu dàq ma ñu romb ci kàttanu yàlla yent ci barke sëñ Mbàkke Madina mi nga xamante ne bii moom lii ma woon moo ko santaane woon tam jëlee woon ko ci Cheikh mu Moustapha e, xasida yi xasida yi itam ñu ngi doon jànge ginnaaw bi sëriñ bi génn see nag ñu bàyyi leen nag waxtaan yi nga xamante ne bii moo fa jib ca jataay ba ñun ñëpp ñu maase teewlu eh, waxtaan yooyu. kaddu yu kaddu rek ndax ku ne xam na ni jamono ji ni mu mel kon jataay bi du yàgg xanaa dañuy jox Serigne Fallou Ndiaye mu def niñ baaxoo def lim daayira yi ak kilifa yi fi teew yëpp su ko defee ñu jox Serigne Ahmadou Ndiaye Nguerane mu wax ci turu diwaanul Mouridina ci ndigalu Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma. su ko defee ñu jox seriñ Mbacke Fall mu wax ci kàddu mbooloo mi nekk fexe ba boo fi jógee sa mbir mépp jàpp te jalaay bi mën na ko ndax jëmm yi toog yoonu murid bépp ngi ni toog kon képp ku fi waay di sàkk mën nga ko am te ni ma ko waxee léegi rek temps yombut kon boo daggee sa temps fexeel ba la tax nga dagg ko nga am nga am kon ñu may nu ak dal ñu jox Serigne Fallou mu tàmbali liggéey bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu wa sallam ala alhaadi alamin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa anshur alayya albarakati duna dur wa li siwaaya kuffa kulla ma yadur assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sëriñ Cheikh Mbacke Madina ñi ngi lay nuyu te di la ziyaar yaar sa bopp yi nga àndal yu tedd yi teew fii di jël kàddu rekk ci ndigalal mbooloo mi yépp ngir dañoo woote ñu wuy sinu ñu ñooñu wuy sëriñ bi ñooñu lañ la bëgg a dégtal ki ci jiitu mooy sa mbokkam mbokk muy sëriñ Cheikh Aliou Mbacké ñëw na ci jataay bi topp ca sëriñ Cheikh gaynde Mbakke mu sëriñ Mbakke Madina ñëw na ci jataay bi ñëw na ci jataay bi sëriñ Alxaaji Mbakke mu sëriñ Abdou Xari teew na ci jataay bi teew na ci jataay bi sëriñ Maam Cerno Mbakke mu sëriñ Fallas Tujee teew na ci jataay bi itam sëriñ Moustapha Mbakke moom sëriñ Mbacke soxna loo ànd ak rakkam sëriñ Fallou Mbacke ak délégation bi ñu àndal yépp teew na ci jataay bi sëriñ Ousmane Mbacke mi nga xam ne mboolem kër Cheikh Moustapha yépp tey moo leen jiitu di leen jiite di leen nose teew na ci jataay bi sëriñ Mbacke Madina mu sëriñ Ndam Hatta teew na ci jataay bi sëriñ Hamsatu Mbacke teew na ci jataay bi sëriñ Mbacke Madina mu sëriñ Muudu Roqaya teew na ci jataay bi sëriñ Cheikh Ndiaye mu sëriñ Abdourazaq Ndiaye ànd ak ay rakam sëriñ Ousmane Ndiaye ak sëriñ Mbacke njaay ak mboolem Daru Ndiaye gépp teew na ci jataay bi sëriñ Xaadim Saar teew na ci jataay bi sëriñ Lamine Mbacke mu sëriñ Mbacke Madina teew na ci jataay bi sëriñ Njaga Mbay Keere teew na ci jataay bi sëriñ xaadim fall maajoor teew na ci jataay bi sëriñ abdul ahad géey sëtub sëriñ adama géey teew na ci jataay bi soxna astu mbakke moom sox sëriñ mbakke cheikh mbakke gaynde fatma teew na ci jataay bi soxna faati xariloo teew na ci jataay bi soxna maam ami mbakke xaahira ak rakkam soxna daba mbakke waaye teew na ci jataay bi soxna aji yëmbu jeng ak soxna xadi mbakke ak soxna magu jeng ak soxna maam ami jeng ak soxna bintu jóob ak soxna màggat faal teew na ci jataay bi sëriñ fàllu jóob mu soxna bintu dan teew na ci jataay bi sëriñ murtada mbakke mu sëriñ mustapha abdul aziz teew na ci jataay bi sëriñ cheikh bombali mbakke mu sëriñ ibra ñaamar teew na ci jataay bi maam busa mbakke mu sëriñ abdul aziz mbakke loolu mooy kilifa yi nga xam ne jotoon nañu leen a jël ku yàlla dogal déggoo ci sa tur ñu xam ne xëy na jël gi rek moo agsi wut waaye yéene woon nañ ñëpp teew na ci jotaay bi itam sëñ Mahmadan Mbakke mu sëriñ Mbakke mu sëñ Cheikh Mbakke gaynde Fatma ginnaaw bi loolu wéyee itam sëriñ bi ñu lay xamal ne mboolem daayira Daaru Xudoos yëpp teew nañ ci jotaay bi daayira bu ci njëkk diiwaanul muridiina moo ci njëkk sëriñ Ousmane Mbacke jiite ko teew na it ahbaabul Moustapha bi nga xam ne sëriñ Mbay Longoor moo ko jiite teew na ci jataay bi ibtihaadu atbaa'il qadiim li taawuni wa tamassuki bi diinil qawiim bi nga xam ne sëriñ Cheikh Diop Kellel mooy jawriñ ja ak soxna Faati Xariloo teew na ci jataay bi daairatu majmaun nuurayn bu sëriñ Aliyu Mbacke bàyyi seexloo jiite ko teew na ci jataay bi mu waaridul asfiya bu sëriñ ahmadu mbakke tindoodi ahmad jeng xaar jiite ko teew na ci jataay bi saalikiina bu sëriñ saalih mbakke ambassadeur saalih fall jiite ko teew na ci jataay bi diiwaanul muridina bu sëriñ mahmudan xariloo sëriñ taala jóob jiite ko teew na ci jataay bi soppey xaatim xaadim bu sëriñ ibra xafsatu sëriñ sawru jiite ko teew na ci jataay bi sëriñ daayira sëriñ xaadim mbakke mustafa sëriñ abdoulaye ka jiite ko teew na bi at taawunu fi sabilillah bu sëriñ ahmadul muxtaar sëriñ cheikh abdoulahi gay jiite ko teew na ci jataay bi matlabul fawzayni bu sëriñ fadilu mustafa sëriñ suudu jóob jiite ko teew na ci jataay bi ahibaa il qadim li nusrati li diin il qawim bu sëriñ mustafa mbakke sëriñ ablaye fall moussa jiite ko ak soxna Mame Bousso Mbacké lii mooy daayira yi daayira Xudus yi nga xam ne ñoom itam teew nañu ci jataay bi waaye sëriñ bi mboolem département bi nga xam ne mooy département Mbacké ñoom ñépp teew nañ ci jataay bi ci njiital sëriñ Mor Talla Lo Madina Touba sëriñ Cheikh Lo jiite ko teew na ci jataay bi Mbacké sëriñ Mbacké Ba jiite ko ak soxna Xayaar Amar ak soxna Ndey Talla ak soxna Amidou ak soxna Aram Seck Madina Serigne Mbacke Diagne jiite ko ak soxna Khady Diop Xaayaan Sawru Seck jiite ko Bombali Mudu Thiaw jiite ko ak Anta Ndiaye Tun Abdou Chakour Ka jiite ko Jamweli Moustapha Diouf jiite ko ak Ndoyo Dior Dior Bango Serigne Mbacke Dem jiite ko Daaru Rahman Serigne Moustapha Sarr jiite ko ak soxna astu Mbàkke daarul minan sëriñ Moustapha Sarr jiite ko ak soxna astu Mbàkke ak soxna say Gajaga Taif sëriñ Omar Ndiaye jiite ko ak soxna Fama Gaye Touba Kayel jiite ko sëñ sëñ Moussa Thioune jiite ko ak Kumba Lo Daaru Rahmaan Baylaaji Aljumaka jiite ko Girñal Girñil sëriñ Moussa Ndiaye jiite ko ak soxna Mariatu Diop Nduureen sëriñ Thierno jiite ko Kayel Pël sëriñ Biram Ka jiite ko ak sëriñ Assane Ka Mbul Kayel sëriñ Bac Diagne jiite ko Daaru Rahman sëriñ Njaga Cen jiite ko ak Soda Lay ñii ay daayira yoo xam ne ñoo bàyyi ko ci département bi ñëw fii noonu itam la daayira yi bàyyi ko ci région bi ñëw fii daayira bi ci jëkk région bi ci jëkk di Diourbel sëriñ Abdoulaye Xarma jiite ko ak sëriñ Makhtar Gueye Dakar sëriñ Mbacke Gueye jiite ko ak sëriñ Makhtar Ndiaye ak sëriñ Aliou Ndiaye Tamba sëriñ Mbaye Cissé jiite ko ak soxna Maguette Niang kawla sëriñ Mbacke Faye jiite ko ak sëriñ Abdou Dieye Thiès sëriñ Mabouri Wade jiite ko ak sëriñ Sayba Mangaan pilug ndëri sëriñ Xaadi Saar jiite ko ak soxna Ndey Fall Louga sëriñ Njaase Mbooj jiite ko ak aji Magga Tàlloo Ceyeen Jolof sëriñ Mbakke Géey jiite ko jigéeni Cees yi soxna Fatou Ba ak soxna Ndey Mari waaye Ceyeen Jolof itam sëriñ Cheikh Sarr ci njiit yi la Ziguinchor sëriñ Abdoulaye Sarr jiite ko ak sëriñ Mbakke Dia Sinjaan sëriñ Badara Jeng jiite ko ak soxna Magat Fay Tuube Jeey sëriñ Mudu Fay jiite ko ak sëriñ Ibrahima Bo Tuuba Ndimb Mandela Mbay jiite ko ak sëriñ Maysa Géey Tuuba Daaru Jaañ Baran Jaañ jiite ko ak soxna Faat Seck Tuuba Ngay Ngay Paala Jóob jiite ko ak soxna Ami Faal naka noonu itam Tuuba Ndengleer sëriñ Aliou Fay jiite ko ak sëriñ Mudu Kayre Faye Touba Ngembe soxna Fatou Gassama jiite ko ak soxna Ayta Guèye ñoo ngi ay daayira la yoo xam ne ñoo bàyyi ko ci région yi waaye itam sëriñ bi bitim réew ay mbokk nga fa di liggéey bàyyi seen xel sëriñ Mbacke Madina Portugal sëriñ Abdou Mbacke sëriñ Mbacke moo ko jiite ak sëñ Malick Guèye itali sëriñ Mbacke Ngom moo ko jiite ak soxna Maguette Dior Espagne sëriñ Mbacke Bey moo ko jiite France sëriñ Papa Lo moo ko jiite Afrique du Sud Maam Mor moom moo ko jiite Banjul sëñ Muudu Fay Mali Alxaaji Mbuub moom moo ko jiite ñooñu itam ñooy daayira yi nga xam ne bàyyi ko nañ bitim réew ñëw bokk ak ñun liggéey sëriñ bi daayira yi nga xam ne nag ñoom ñooy fédération yi nga xam ne moom moo nekk ci biir dëkk bi te Baye Cheikh Lo boole yépp jiite leen ki ci jëkk muy daayira bi nga xam ne moom la soxna maam Ami Mbacké Xaahira jiite teew nañ ci jataay bi mboolem sëti sëriñ Mbacké Madina yi ci njiital Baye sëriñ Mbacké ñoom itam teew nañ ci jataay bi Islaahu Daarayni daayira bu mag bi ci kër gi sëriñ ngañ jeng jiite ko sëriñ ngañ seen jiite ko ak soxna daba faal ak soxna joorloo ak soxna ndey faal ak soxna faati jaane ak soxna awa ak soxna aram gajaga ak soxna batoor géey ak soxna faati kebe ak soxna maami sey ak soxna ma ami jaxate ak soxna ndey ngom ak soxna faati gay ak soxna ami loo ak soxna maam faati njaay ak soxna ami jeng ak soxna lootaloo ak soxna maawaloo daayira islaamu daara ñu looyeen soxna bombaloo jiite ko ak sëriñ Mbàkke taal ak soxna bu so taal islaamu daara ni deux sëriñ Mor Mbay jiite ko ak soxna Jeng quartier bëgg Bamba sëriñ Mbay Jóob jiite ko muy sëriñ Mbay Jóob xeer ak soxna ummi Jeng kër ñang sëriñ Mamaloo jiite ko ak soxna Sooda Dia ndaam sëriñ Abbas Dia jiite ko ak soxna Dialka Madiana sëriñ Cheikh Gueye jiite ko ak soxna Soda Gueye daairatu salaam Ndamatu sëriñ Moustapha jiite ko ak soxna Bomba Mbay daaru tansiil sëriñ Mbacke Gueye jiite ko ak soxna Koddu Badiane daairatu alxaaji Fadilu Mbacke bi nga xam ne mooy sëriñ fal moom sëriñ Mbacke Madina ñu bàyyi ko ba Malka sëriñ Masamba Ndong jiite ko ak soxna Ami mafatihul bichri daarul manaan ibrahima Gueye jiite ko ak njaayka ka safoori sëriñ mbakke madine yi sëriñ mbakke saar jiite ko ak soxna soore Diop yoonu daaru sëriñ mor jatara jiite ko ak soxna joor ndaw daayira soppee sëriñ mbakke madina asalem sëriñ góora njaay jiite ko ak soxna fat njaay daayiratu islaahu daare ni tuuba madina sëriñ Njoogu Caam jiite ko ak soxna Cuba Fall daay daayira nuuru daarayni bu sëriñ Moustapha Mbacke Madina sëriñ Mokhtar Diop jiite ko ak soxna Fatou Lo ñaan daayiratu sëriñ Cheikh Ñang Bouchra Baye Cheikh Ñang jiite ko ak maam Boussa Ñang Baye sëriñ Ñang jiite ko ak maam Boussa Ñang Touba Sonatel sëriñ Baara Seck jiite ko ak soxna Daaro Fall Jannatul Mawa sëriñ Cheikh Ndiamarloo jiite ko ak soxna Jëmb Dieng Daaru Naim Looheen sëriñ Talla jiite ko ak soxna Bombaloo Touba Njaareem sëriñ Mbacke Gueye jiite ko ak soxna Mbenn Fall Foras sëriñ Gora Ndiaye jiite ko ak soxna Amidia Daarul Karim sëriñ Abibu jiite ko Daayira Islaahu Daarayni Ngiraneen sëriñ Lamp Fall jiite ko ak soxna Ndey Sey Daayiratu Islaahu Daarayni Madiana Seng sëriñ Basiru Gueye jiite ko ak soxna Amari Ngom daayira islaahu daara taaleen sëriñ Mahmadan jiite ko ak Mam Penda Thiam daayiratu islaahu daara ni njaxaay sëriñ Mudu Jeng jiite ko ak sax sëriñ Daam Ndaw daayiratu Daarul Qudus Abdul Xumma jiite ko ak Awa Silla Mafatihul Bichri Baye sëriñ Mbàkke sëriñ Liba jiite ko ak soxna Dramé daayiratu Islaahu Daarayni alom ga koddu Jeey nguuda Jeey jiite ko ak Faati Jeey daayiratu soppey Sëriñ Mbakke Madina Bachiru Jeng jiite ko ak soxna Mati Jeng daayiratu Islaahu Daarayni marché Ocass bay Lamp Njaay jiite ko ak soxna Xadi Jeng Islaahu Daarayni Ndaamaatu Sëriñ Moustapha Kan jiite ko ak soxna Buri Njaay su fekkee ne amul benn daayira bu ma fàtte ñii ñooy daayira yi nga xam ne teewal nañ fii ci mbooloo mi képp koo xam ne fàtte nañ ko nag ñu xam ne nit a deme noonu nañu jéggal wasalaamualeykum الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخديمه سوي الرضوان والتمكين بوكي جلدي بوكي طالبي asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi yëkkati sunu ko jëmee ci kilifa jataay bi sëriñ Cheikh Mbacké Madina ak mboolem njaboot gi mu àndal yépp kenn ku ne ab nuyoo ak ziyaar bu méngoo ak wàccuwaay dina suñu borom jox di leen jottali sunu nuyoo ci kilifa yoon bi ak Seydil Muxtaar sëriñ si amati lay ak mboolem ahfaad Seexul Xadiim kon mu mel ni maa ngi yëkkati sama kàddu ci nduru mboolem taalibe yi nga xamante ni ñoo aju ci biir kër Cheikh Mouhamadou Moustapha muy diwaanu Mourideen diwaan bi nag jubluwaay bi moo doon lëkkale mboolem njaboot yi nga xamante ni nii Cheikh Mouhamadou Moustapha mooy seen buntu ci Seexul Xadiim moom la sëñ Ahmadou Mokhtar doon yeesalaat jële tur bi ca 1941 muy daayira bi fi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke jëkk sos te defoon Cheikh Mouhamadou Moustapha muy président ba mu jël sëñ Fall Tepp muy vice président ba te mboolem yoon wi ñëpp commencé woon ci biir doon teroo ginnaaw boo xamante ni ni xam nañ ni jublu borom kër gi mooy nu ànd Cheikh Mouhamadul Moustapha waxaloon boppam ni mboolem di ngeen bëgg ci suñu borom te mënu leen ko ñàkk mi ngi nii suñu borom jox ma ma téye muy ngërëmal yàlla loo xamante ni mer topp ca gannaaw waaye duma leen ko jox mukk li fekk boolewu leen seen bopp li fekk boolewu leen seen bopp ci lu leen boole rek lay def loolu moo tax diwaan bi jóg waaye wax ko rek yam ca ci ak mu jëm daa dajale ak njabootam sëriñ Cheikh ma ca mag mu wéet ak moom ni ko Cheikh mu ni ko Mbàkke mu ni ko àdduna soppi ko la baaxoo te dana soppi ko ma bëgg bu àdduna soppi ko nga jiitu sëriñ topp ci yow ndax danga ko mën mu ni ko danaa ko mën mu demaat ab diir mu woo sëriñ Mbàkke Madina wéet ko sëriñ mu ko Mbàkke mu ko àdduna soppi te dana soppi ma bëgg bu àdduna soppi ko Cheikh jiitu nga mën ko mu demaat ab diir mu leen ni leen la ma doon ñaar ñaaroon ak yéen laa bëgg nu wasoo ñoom ñett yàlla di seenum ñeenteel mu waxaat leen leen ni adduna dana soppi ko te soppi ko la baaxoo ma bëgg bu adduna soppi koo seex nga jiitu sëriñ topp ci yow bu ëllëgee ku ca war topp yàlla xam na ko ndax da ngeen ko mën ñu ni ko danañ ko mën mu ni leen de kenn ku nekk ci yéen defal naa la loo xam ne mën ngaa toog sa kër bañ a seeti sa morom te teel sa aajo du faju waaye bu ngeen ko defee sagalu leen sëñ Tuubaa siggalu leen su ngeen ko defee sagalu leen sëñ Tuubaa siggalu leen loola ci diwaan bi ngir lëkkale suñu bopp ndax alal joo xam ne yaa ko moom lay tey nga jot ca loolu dara wartu mën a sa digg loolu boo xamante ne ni wóor na ne li mu wax man na ndax wax nañ ne bu ma rusut woon Sëñ Tuubaa danaa dem ci mëneen réew def ko ni mii te loolu wóor na ko ni lu ma nekk la ndax bu mën woon na du ko wax ndax daan wax ne fa ma Sëñ Tuubaa gaa yi gis ñu sama pënd daan wax ni itam ni fa mu sëñ Tuubaa badd rus naa bokk yi xam yooyu yëpp ay tolluwaay la yoo xamante ni ni xam na li ko suñ borom may xam na itam man-manam fi mu toll ci njaboot loolu moo taxoon sëñ Ahmad yaasalaat diwaan bi sëñ Ousmane mii jiite ko mboolem taalibe kër gi yëpp ànd lëkkaloo topp ci gannaawam su ko defee ci kàddu loolu sëñ Cheikh ñoo ngi lay sant te di la ñaanal yaa mboolem ñi nga seqal kër gi yëpp ndax xam nañ ni taxawaay bi nga taxaw ci sàmm ormay yoon wi ak sàmm ndono li nga xamante ne ni moom la fi mag ñu bàyyi taxawaay bi mat na ko sëkk mat na bu baax a baax rafet na moo tax noonu ñaan te ñaan lañ am te am nañ yaakaar ne bu nu ñaanee suñu dana ko doon moo tax noo ngi ñaan saw fan gudd hmm. noo ngi ñaan sa taxawaay yàgg hmm. noo ngi ñaan suñu borom dolli sa wér hmm. dolli sa kàttan ba li nga yéene ci njaboot bi suñu borom def ci lu karu li tax nu war a sa soo ñaan sëñ Maxtaar Penda Jeng dafa nettali ni sëñ Tuubaa daam lu mu leen doon liggéeyloo ci sàkket nee na ba ñuy sàkket sëñ bi leewu sayu mburu ñëw jox leen sëñ Maxtaar ne maa ko nangu ne ma ne ko jasakallahu xayran nee na sëñ Tuubaa bi muy delluwaat ci kër gi daa mel ni ko yàkkamti bay daw ne ba mu demee lewwaat waneen say wani toll di ko jox ma ne ma lewu say wan ni tekk di ko xool sëñ bi di ma xool ba mu yàgg mu ne maxtaar ma ne ko mbàkke mun ma li tax li nga waxoon waxaatoo ma ne ko mbàkke da damay bañ nga sonn mu ne ko mataar du ma sonn du ma tayyi jasakallahu xayran képp lay wut du ma ko doyee mukk <laughs> loolu moo tax sunu ñaan yi duñ ko xeet aw sas la woo xam ne sasoo nañ ko te du booy baneen bi ci des sëñ Matar Pend neen damaa dajeeg moom ci biir keesu kër gu mag sëñ Tuubaa yëkkati juróomi doomi tàndarma jox ma ne ma ne ko yoolu julli juróom yàlla na ko suñu borom defal ne ndeke da tàndarma ji ab saako la sëñ ne ma kaay nu ànd mën ma yàngal sa mbubb ne ma yàng mu ne bay kalamba bi sottil ma ci ma ne ko yool Ababacar Omar Ousmane ak Aliou yàlla na ko suñu ma saako bi ni ma jëlal sëñ bi yàlla na gudd fan yàlla na suñu borom taxaw ñoo ngi lay ñaanal bu baax luñ ci ñaan xeeb nañ di la ñaan itam nga ñaanal mboolem bokk yi nga xamante ne ni ñoo ne ci sa te kenn ku nekk yor ndoonu loo xamante ni nii ci mag ña la ko jëlee war koo sàmm ba àggale ko fa nga xamante ni nii foofa la suñu borom mébét ni fa la war a jëm te nu fekk ko te taw te am yaakaar ne boo ñaan ni suñu borom dana nangu Cheikh Abdallah doomu Cheikh Sidiya la daa ñëw fii gane Sëñ Moussa ba muy dem mu wax suñu Moussa ni ko dañoo bëgg nga jox nu turu yàlla ci yi la fi sa baay bàyyi ma jox la wenn turu yàlla ci yi nu fi sunu baay bàyyi Cheikh Sidiya Cheikh Abdullah doomu Cheikh Sidiya sëñ Moussa ni ko nun suñu bàyyi bàyyiwu fi turu yàlla suñu bàyyi li mu fi bàyyi ci suñuy bët la ko def lu mu xool mu mel na nu neex loolu na am naa yaakaar ak rafet njort bu baax ni sëñ Modou yóbbaale wu ko waa amaamaa yéen faw naas fa yam ko su fil at jumtukaay yi ñu liggéey ci kaw suuf moom ku mën a demit doo ko yóbbaale fi nga koy bàyyi moo tax su nu bëgg ngeen sotnu ci ñaan ba li nu bëgg ci kër gi suñu borom defal nu ci lu kawe suñu jot te mooy kër gi ànd rek lañu bëgg amuñu jëniñ yitte li ci des lépp mag ñu fàggu nañ ndax toujours danaa koy wax ni buntu kër boo fi dem daan yee bari fa ñuy buux buux loo ko ca biir doonu ca dara ña ko lëggéey ci armée yoo tëdd moo tax li waroon am lépp mag ñu lëggéey na ko li ci des nag nga xamante ni nii ci noonu la dese loolu mooy mu boole suñu bopp takkutoo doon wenn say sàpp ci gannaaw Seexul Xadiim mu doon jëw nii loolu ñu ngi koy ñaan dina ko ñaanal nga ñaan ci dara ji Seexul Xadiim suñu borom defal nu loolu mbooloo mi daal moom seen yitte yëpp mooy mooy loola rek ci la ñuy bay jéem a sàmm ndono ak turaas yi nga xamante ne ni moom la fi borom kër gi bàyyi woon mm. muy Cheikh Mouhamadul Moustapha boole takkutoo suñu say doon jàppatoo suñu bopp mm. kon ñu ngi lay ñaanal ci dara ji Seexul Xadiim ñu ngi lay ñaanal ci daraja yi Serigne Mbacke Madina mi nga xamante ne nii moom nga wuutu suñu borom defal nu yërmaane defal nu tawfiq defal nu saadat dara yi sëñ Ousmane mi ngi lay sant bu baax baax di sant itam mboolem mi nga xamante ne ni moom la bokkal diiwaan bi tey daal jataayu ñaan la tàllal nañu suñuy loxo di leen ci yaakaar tey jàpp ni bu ñu fi jógee suñ pajub aajo dana dana faju ndax mbooloo mi li ci ñëw li des ci bitte ko ëpp te ñëwuñu kon du saafara soo xam ne da ngeen ma ko jox ñuy séddoo wala kàllu suuf bu ñuy séddoo dana bëgg rek ngeen siggi xool ñu ba tiyal maa ne ñaanal suñu borom taw feew bu ñu génnee ku ñu tasee suñu ajo ajom faju loolu rek lañ bëgg loolu nag jàpp nañ ni lu mën a nekk la ndax ki nga wóotu ci barab bi itam kenn ku ne xam na ko sëñ ma Lamine Ndiaye ne daa ab ab mbokkam mu wàcc mu ñëw doon ko wax sëñ Mbàkke Maat mi ni ko dama bëggoon ko ko taxaw sëñ bi ni ko lu muy def lu mu doon def mu ni ko faat bakkan ak faat waxtu la doon liggéey waaye nag lépp lu mu mos am man la ko jox ndax jàpp na ne lu ma wax yàlla mu def te loolu ci yow mii rek laa ko yaakaar mu ni ko nañ ko indi loolu nag jàpp nañ ni ba tey itam ñu ngi ci barab bi kon sëñ bi ñoo sant bu baax a baax di ñaan suñu borom defal nu tawfiq ak taysir wasalaamualeykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin ayuha alxaadiruna walxaadirat nuxayikum taxiyatan islamiyatan bi xalbin mufaamin bilwuddi wa taqdir ala wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ama baad fa min dawaaci sururi walfaraxi an nuqaabila fi rixaabi haasi albuqxati almubarakati a cheikhana cheikh Mbacke Madina ibnu sëriñ mbàkke madina li ziyaarati sanawiyati allati yuqimuha ad daairatu islaahu daarayni sëriñ cheikh mbàkke madina maa ngi ci ay kàddu yu bàyyikoo ci mboolem daaira yi aju ci fédération islaahu daarayni bu sëriñ mbàkke madina ci biir réew mi ak bitim réew ñu ànd koog mboolem njabootuk cheikh mouhamadul moustapha ak mboolem soppee sëriñ mbàkke madina góor ak jigéen mag ak ziyaara la ak feddali suñu cofeel ci yow sëriñ Cheikh Mbacké Madina mbooloo mi ñi ngi lay nuyu nuyoo bu gën rafet ci nuyoo yi di la sant cant bu gën a mat ci cant yi di la ziyaar ziyaar bu mu gën a sell ci ziyaar yi te di la ñaanal nga yàgg fi lool te wér ba àggale sa yéene ci lislaam te nga ànd ko noonu mbooloo mi ñu ngi nuyu kilifa yu baax yi nga bokkal jataay bi di njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha dañu teew fi te jataay bii wane na ni njabootu Cheikh Moustapha gépp benn lañu te lii rek la Cheikh Moustapha Mbacké bëggoon lépp nekk benn te njabootu Cheikh Moustapha gépp teew nañu noo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yàggal leen fi te may leen wér ak kattan ci barkeb seen maam ju tedd ja Cheikh Mouhamadul Moustapha Serigne Cheikh Mbacke Madina mbooloo mi nee nañu ñi ngi feddali sunu jaayante ak sunu njëbbal ci yow ndax kenn ku ne ci nun bi mu dikkee fi yow di jaayante lam wax waxu ko woon ndax ay fan waxu ko woon ndax ay weer waxu ko woon ndax ay at dañoo waxoon ni rek fii ñoo ngi dund loolu mi ngi ci sunu kaw ba tax na jaayante googu ñoo ngi ko teg ci sunu kanam te loolu moo di noo ngi diglu rekk ndigal loo ñu digal ñu def ko te di ñu dellu gannaaw mukk ci loolu ba tax na noo ngi ñaan li ñu jaayante ak yow nga nangul nu ko te defal nu ci la Sëriñ Tubaa defaloon mag ña jaayante woon ak moom wahab li kulli man taalaxa biya saadata daarayni ya rabbiya ca mooy texe ak àdduna ak alaaxira sëriñ bi mbooloo mi ñu ngi lay sant te yàlla rekk tax ngir sa taxawaay ak sa yitte ci lii la fi sëriñ Mbàkke maddina bàyyeel ndax yaa ngi koy yaatal di ko sàmm li jamonoy diis diis lépp yaa ngi taxawu bindeef yi di leen yërëm di leen jariñ te lépp yaa ngi ko booleek ak muñ bu rafet ak topp say kilifa te sëriñ Mbàkke Madina foofu rek la tegoon tànkam nekkoon jëmm joo xam ni li yàlla defoon ci moom yombul ndax nekkoon na ku ragal yàlla lool wóolu ko lool yaakaar ko lool doyloo ko lool te daa ko jaamu guddi ak bëccëg te loolu la cay firnde li ci seere mooy magam ju baax ja sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma te xam ni seen lépp benn la woon wax na ni sëriñ Mbacké Madina dara yóbbewu ko tuutaayam ba lul ak ragal yàlla nu mu mel ak ragal yàlla moo ko ko yóbbe ak wattandiku yàlla waajuram wu tedd wa Cheikh Mouhamadul Fadal neewoon na sëriñ Serigne Mbacke Madina murid saadix la te mboolem jikko yu baax yooyu ñu gisoon ci moom gis nañu ko ci yow mii saa su ne ab royukaay nga te am kilifa rek moo am solo te am nañu ko ba tax na mbooloo mi nee na dalal nga xeli taalibe yépp siggil nga sa maam ja xaadim rasuul ma waxoon boroomam ne ko waxab lana zuriyatan tuddiimu al amala saalix yaa xadiimu sëriñ bi ñu ngi lay seereel ni jëwriñ yi jiite daayira yi seen taxawaay rafet na lool ndax waxtu wu ne ci liy yokk benn mbooloo mi rek ci lañuy sonn ngir bëgg lu baax waaye itam daayira yi nekk ci seen gannaaw nangu nañoo toppe ci ñoom waxtu wu ne guddeeg bëccëg ak fu fi ab daayira nekk ña ngay taxaw ci liggéeyu sëriñ Mbacke Madina bi nga xam ne moo ñu ko digaloon te mooy mboolem mbooloo mi ànd nekk benn gën a boole xol yi ndax lii xol yi ànd rek moo ko indi ba tax na sëriñ bi nanga ñu ñaanal ba li ñu bëgg ci bennoog mbooloo mi nu am ci lu kawe sunu jot te Serigne Touba ñaanoon boroomam boromam murid yépp nekk benn yaa rabbi jaal dina maa fi isnikal xasini wasam lañ maa sëriñ Cheikh Mbacké Madina mbooloo mi nee ñi ngi lay ndokkeel ci bis bu tedd bii te di la ci ziyaara ziyaara bu ñu tibbe ci suñuy xol bu ànd ak yaakaar tey sàkk yool bu nit mës am ci ziyaare waaju baax ñu am ko ci sunu ziyaara bii te bis bii ak waxtu wi bokk na ci jamono yi nangu ñaan kon Mbàkke noo ngi dagaan nga ñaanal sunu boroom subhanahu wa taala mu defal nu sax ci ndigal faw te bu ñu delloo gannaaw mukk ca lañu jaayante woon ak yow sëriñ Cheikh Mbacke Madina mbooloo mi nee na ñi ngi sàkkul ñaan kenn ci mbooloo mi doonoon jàmbaar lool ci liggéey bi muy sëriñ Mbacke Jaañ rahmatullahi alayhi nekkoon na ku bari pëstéef di koo xam ne ab taxawaayam ràññi ko woon na lool ci mbooloo mi doonoon banqaas bu rëy ci fédération bi nga ñaanal ko sunu borom jéggal ko te yërëm ko te wanale ko sëriñ Mbacke Madina noo ngi koy fàttaliku bu baax a baax te di la seeral taxawaayam bi mu amee woon ci mbooloo mi sëriñ Cheikh Mbacke Madina mbooloo mi nee nañu ñi ngi sàkku nga ñaanal leen ñaanal seenu njaboot sunu boroom dimbali ñu tey ak ëllëg ban gën a mën a liggéeyal sëriñ mbakki Madina te am ngërëmam te sunu borom dolli nu yërmaande ak xéewal ak mucc tey ak ëllëg sëriñ bi na nga ñaanal nawet bii yàlla àggale ko ci jàmm te mu barkeel lool te ñu muurloo ko te jariñoo sëriñ Cheikh Mbacke Madina mbooloo mi nee nañu nga ñaanal ñu sunu borom subhanahu wa yaram yépp wér fan yépp gudd nu yeex a dem nu déggoo juboo kër gii nu nekk ak gënu jëm def ko muy sunu mbég sàkkul na it ngërëm ak wërsëg bu yaatuwu lew sëriñ Cheikh Mbacké Madina mbooloo mi nee na seen xel dal na seeni xol sedd na te sunu njort rafet na te sunu yaakaar dolli ko ne ci yow ak mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha bi di leen ñaanal yàlla mu may leen fan yu gudd ak wér ak kàttan ba lépp lu ngeen yéenee liggéeyal Cheikhul Khadim ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ngeen def ko ci seen sago te lépp nu fekke ko ak taalibe yépp te ñu seere ko ci barkeb sëriñ Mbacke Madina lii moo nekkoon kàddu yi mbooloom noo ngi jéggalu tey sant bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa ñaanalin nag waaye rafet na lool tabaarkàlla la ca desit mo mooy sant ñii nga xam ne ñoo woote bis bi ndax daaw bi ñu fi jógee ba tey ñu ngi ci waajalaat ko rek noppal wuñu guddi ak bëccëg nee na loolu it mi ngi leen ci sant bu baax te di leen gërëm di leen ñaanalin nag di leen fàttali it li nga xam ne moom na fi dajale muy ndigalal sant yàlla sunu borom mi nga xam ne moom la ñu jox muy nu war koo jaamu ñu jaamu ko te bañ koo moy te bëggante ngir yàlla te toppante ngir yàlla te jàppante ngir yàlla yërëmante ngir yàlla te dimbalante ngir yàlla te bañ tooñante kuñ ci tooñit boo mënee jéggale nga jéggale buñ ko defee li sëriñ bi digle sax ci watandi ko ay tereem dana am danañ am sunu bëgg fii ci àddina am ko ëllëg àllaaxira te loolu rek la nit di wut kon nag nañ ci góor lu baax mu ngi ñaanal ñëpp te di leen gërëm sunu borom dolli leen dimbal tey ak ëllëg dafa leen xéewal tey ak ëllëg musal leen tey ak ëllëg defal leen tawféex ah. dëppale nag sëriñ bi waxtu wu ne tey ak ëllëg jërë jëf na ñëpp taal ngeen dégg kàddu yi nga xamante ne bii moom la mbooloo mi yëkkati jëmale ko ci sëriñ bi e muy daayira yi nga xamante ne bii sëriñ Mbàkke Madina daf koo digle woon ñu samp ko ci gor yi kon gox bu nekk yéen dégg daayira ba ak kilifa yi fi teewit ni ñu ko limee dégg ngeen ko dégg ngeen tam e, sëriñ Ahmadou Ndiaye ngeeraan ci turu sëriñ Ousmane Mbàkke moom mu wax ci turu diwaan bi yéen dégg tam sëriñ Mbàkke Fall wax ci turu mbooloo mi gis ngeen tam kat yi nga xamante ne bii sëriñ bi tontu na ko mbooloo mi mu gàtt lool te mataleel sëkk kenn ku ci nekk gën a duyaat sa ndab ba mu fees dal ñu wëlbatikuwaat nag fas yéene dem ci kër gu màgga e ci gaaw bi ci bisu màggal gi ngir ni ñu def siyaare bi ñu def ko màggal gi ba mu mel ni war a mel kon ñu ngi sant mbooloo mi ñëpp di leen gërëm di ñaan suñu borom mu taxawunu sayir ak baatin ba li ñu bëgg sëriñ bi bëgg ci noonu mu am ko ñu ne li ñu bëgg sëriñ bi suñu borom defal defal defal na ko muy yàgg fi ak wér ak mbooleem njabootu Serigne Mbacke Madina gépp ñuy sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ki doon def présentation bi nag di seen mbokkum taalibi Serigne Alaaji Ñas Touba Daara Xudóos taalibi Serigne Abdourahmane Mbacke Madina ilaahi maa ngi jóg ngir marsiyaal Serigne Mbacke moom Madina si neti rijaal bismilaahi maa ngi jóg ngir marsiyaal Serigne Mbacke moom Madina si neti rijaal dunyaay kërug naqarte dip waraa kon waraat na kuy jullit ci waaju baaxoon